su dee yàlla may na la wér gi man-man bi da dem aji Makka waxal ashhadu an laa ilaaha illallah wa wa anna muhammadan rasulullahi gëm naa la seede naa la benn buur bu a jaamu bu mooy yàlla seede naa dëggal naa ne muhammad mooy yonent yàlla kon bés ni ki tey jullit nga ma ne bët ni ki tey nga liñ gëm nga gëm liñ yaakaar nga yaakaar kon yow tuddee naa la Mawlana Cheikhul Islam la